salaamaaleykum mbokk yi baaxoo di seetaan seen jataayu taalif ci Malikia TV ñu del na di mu seetaan sant su borom du jullit Seydou Diop Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ziare kilifa diine kilifa aada kuy def lu baax di wax lu baax ñu la jërëjëf rawatina kilifa yi nga xam ne ñoo waral jataay bile tey nag dañ daan faral di indi daan faral di indi ay mag waaye tey dañoo indi kenn koo xam ne maanaam maanaam ne tout tànk la waaye nag nee nañ garab ci kaw lay fekkante asalaamaaleykum Ibrahima Seck. maaleykum salaam wa sëñ Abdoulaye ñu ngi lay nuyu di la ziar di wax Sénégal ak àdduna yàlla na fi jàmm yàgg kuy sénégalais foo mën mënta nekk yàlla na la suñu borom defal jàmm. segam jàmm gën jamaate ku yàlla defal jàmm nga am jàmm yàlla na nu yàlla defal jàmm. amiin yàlla na yàlla barkeel sunuy mbir ba lu ñu yorati mu toll ni jamaa. amiin leeral sunu yoon ba fuñ jëmati mu mel ni yoonu jumaa. yàlla na nu yàlla musal si jommi ak jàmmaarloo yàlla na nu yàlla jàmbaaral kàttanal ñu ba fu ñu mën a toll di sant naan alhamdulilah. yàlla na yàlla may koom gu bari ba ñuy mën di joxe yàlla na nu yàlla may xam-xam bu am njariñ ba ñuy man di waxe yàlla na nu yàlla may xel muñ ko jaamoo ba àdduna bi ñu mën fee texe yàlla na nu ko yàlla nangul ba yowmal xiyaam suñ jaamu ga du dooni naxe yàlla na nu yàlla musal si seytaanee ki pexem ku ko dégg na ni amin te xam ne ñëpp la ñu waxaaleel waaye amin waaye ko dégg na ne amin fii mooy jataayu taalif kon boo gars nañ ne amin yàlla nangu li nga xam moo di ñaan ibrahim foo gane àdduna maa àdduna Saalum Saalum waaw Hmm. waaw naa ah, kon xam nga dimb waaw xam naa dimbu <laughs> waaye dégg naa Saalum nag ñoom seen cee seen seen togg day tàng de wala bàyyi nañ loolu waaw <laughs> waaw waaw tàng moom baax na ci lu ñuy togg nag dafa war a tàng de waaw <laughs> tout tànk ndax jàng waaw jàng naa daara yan daara daara Serigne Jibril Bousso bu Mbaayeen Mbaayeen Mbaayeen waaw hmm, foofu mooy dëkk ba waaw foofu mooy dëkk sama dëkku maam hmm, waaw Serigne euh, Jibril Bousso mbaa sonaloo ko woon lool. déedéet sonaluñ ko woon. génn jàpp ginaar rëbbi jaar jam picc këpp wóor lu nekk nga dugg ci mbaa bokkoon ci ñooñu. non non bokk woon ci ñooñu bokkuñu noo meloon ca daara ja. ah comme ni ndongo yi war a mel rek. ndongo lu mën a nekk ci daara ji di jàng di sàkku xam-xam di dégg ndigal di bàyyi tere. Mhm. waaw noonu nga fa nekkee woon. waaw noonu lañ fa nekkee ci man at ma man at. Euh, parce que ba quatre-vingt. 99 ba 2006. maanaam atum junni at. waaw ah. ak juróom-ñeent tamit ak juróom-ñeent ak juróom-ñeent ak juróom-ñeent. Mhm. si diggante fa tamit. ba 2006 muy junni at ak juróom ak juróom-benn. Mhm. jàng naa tamit muy juróom-ñaari at muy jur waaw waaw muy juróom-ñaari at. Mhm. école Bamba tam bu fa arab. waaw ba tey ci Mbaayeen. kon nga boole alxuraan bi nga arab nga jàll ci arab. arab waaw waaw ginnaaw loolu nag si laa ñëwaatee suñ kër fii Dakar di jàng métier tailleur fi nga bàyyi koon dem foofu mhm. wala foofu nga jóge ñëw fii foofu laa jógee ñëw fii waaw mhm. bi nga nee cëpp Ndakaaru ak yaatam mhm. yaatuwaayam ak i taaxam ak raj-raj loo ji loo dund foofu waaw dund nañ rek comme nañ ko gée comme jaaxle nga <laughs> waaw waaw <laughs> ñu naan wàcc bees baa ngi ñu ne wàcc bees baa ngi nii kaw kaw baa ngi <laughs> kaw kaw baa ngi ku jóge woon daara jaa ngi nii eh, eh, nu dunde loolu waaw ah, waaw loolu de comme nuñ koy dund xam nga boo jógee daara nag dina xaw a am ak coppitiku. mbaa nekkoon xale bu bari doole ku wax rek nga ñaan ko. non non non non <laughs> waaw bi nga ñëwee Dakar loo fi def. bi ñu bi ma ñëwee Ndakaaru ci laa doon jàng naa école de football jàng naa tamit tailleur. ah jot ngaa football. waaw jot naa jàng école de football. waaw kon mën ngaa ba tey yaa ngi ci. waaw léegi damay dem sport comme nii rek de temps en temps. Mhm. waaw mhm. école de football Bamba Soli laa koon fi mhm. waaw ginnaaw école de football boobu. après nag si jàng métier tailleur. tailleur waaw. Mhm. Mhm. mbaa defoo foofu it morso bu lang rek ngaa def njaxas. déedéet <laughs> duñ jël ah, morso ko mën de. damaa bëggum njaxas te moom wóor na ne amul benn morso bu war defal waaj njaxas ku ñëw rek mu njoof ca. mu njoof ca njaxasal la. mbaa bokkoo ci ñooñu non non bokkuñ ci ñooñu. <laughs> sa sa patron daana delloo morso. waaw daana delloo morso. ah loolu léegi xaw naa jafe de. waaw dañ naan delloo morso moom di koy nuyu di ko ziar bu baax a baax. mbaa métier ma jot naa mokk. waaw métier mokk na ba final léegi nii ñoo ngi di ñawal suñu bop aha da nga am seyfi bop jang jangan so mokale bersa dara bersa dara mhm. ba dara je samp nga ci njub. waaw ak doylu ak xar yàlla. waaw. Mhm. kon nak fiñ tollu ñoy ñawal jigéen ñi wala góor ñi. ñep góor ñi ak jigéen ñi. ñan ñoo gëna neex ñawal. góor ñi gëna neex ñawal. waaye deg na jigéen ñi dàq fay de wala. wa jigéen ñi ñoo ëpp lu ñuy ñawlu. Ah. mais góor ñi gëna neex ñoo ay xew. wa ñaw ëpp ak góor ñi léeg-léeg bu ci seen soxna jappul duñ am <laughs> luñ sol duñ am luñ sol <laughs> léeg-léeg ñu ne nag islam ne na nga dëkk ko dëkkoo ko dundal ko wodd ko faj ko waaye woddoo ndax góor ñaa ngi koy def. ah waaw am na ñu koy def de. am na ñoo xam weeru nekk ñu xotti am ndobina ñëw ñawal seen soxna. waaw euh, lu mel ne mag daal wax rek sama maam lu ma naan wax. ne soxna moom ni nga yore rek nga koy yore. ndax na nangu loolu. ah. ndax doo ko laata nga ciy dugg. laata nga ciy dugg. waaw ah man de yaakaar naa ne nit moom ni mu yore rek lay yore soxna am na ñu ne jigéen boo ko naxul doo ko takk de. boo ko naxul doo ko takk am na ñoo boo naxul doo leen takk ndax ànd nga ci loolu non man bu lépp leeree dëggu ndax sëy na man moom man tànn naa lépp leer ma bañ a am waaye lépp na leer ah Ibrahima gisa gooku lu sa bët yi de ah <laughs> fas yéene woo koo ñàkk de waaw ah, xëy na tamit loolu soobaa ndax doo lay pexe ah, xëy na tamit loolu la <laughs> waaye daal am li ci kanam rawuli daal moo ma gënal li ci kanam rawuli gët mhm. waaw ginnaaw loolu nag euh, loolo boole ak taalif taalif moom dama koo donn ko doon dama koo donn ah foo ko doon ne ci samay maam man ku ñuy wax Samba Jëy Seck ak Mamadou Jëy Seck mm-hmm. ñooy sama maam mm. te bokk nañ si njëkk yaatal taalif ak wolof ci réew mi ak li ko wër fu ñu dëkkoon tu fële ci Saalum lañ dëkkee mm-hmm. waaw Saalum lañ dëkk ah mbindkat yu mag lañ woon mm. ci làkku réew mi waaw si làkku réew mi dañ doon taalif di di yaatal làkku maam muy taalif taxul nga mën taalif noo def ba mën taalif man comme jàng naa daara mm-hmm. jàng naa arab di ci di ci bëgg ko tamit ak ndon li taalif moom du kenn moo ma jàngal noonu rek la ñëwee ci man daa tëdd guddi. Mhm. man luñ la sol la wala lan. waaw lépp ngi ci ci ci ci boor bu ne. nooy bind da ngay mer bind wala jaaxle bind wala jàq bind. ci anam yëpp dinaa mer bind dinaa kontaan bind dinaa gis lu nit dund bind di nga génn ci àdduna bi dégg ak xam. Mhm. nga bind. waaw ginnaaw taalif yooyu ndax am nga foo ko doon uh, waxe ndax am naa fu ma ko doon waxee. Mhm. waaw def naa ay jaar jaar yu bari ci ay télévision ak ay rajo. bi ci gën a siiw moy ban. Euh, jataayu taalif. Mm-hmm. jataayu taalif bi ma defaloon DTV. Mm-hmm. jataayu taalif boobu moom. Mm-hmm. waaw ñu bari seetaan ak ba ma defoon 2STV. maak Tunkara. waaw jot ngaa jaar ci benn euh, télé. télé waaw 2STV. DTV. Euh, yooyu jaar naa ci jaar jaar naa ci benn télé sax doon fa animé émission. nga doon animé ma doon animé. cosaan ak Ibrahima Seck taalif la tudd. kon boog àdduna àdduna. man àdduna maa amoon naqar tiis. am li ma leen bëgg yeggé man sonu na lu nit ñi yàq ñu ne aduna amul kuy sam sama derbi yalla mi ko mën maandu na waxkatu dëgg ko leuré barétul mbokk sorétul ñu ne aduna ma len xajoo fa ngeen ne won munut won leena a ma len leen dagal leni bammel mana man man aduna aduna bul soxor bul iñaan ndax yalla suñu borom amul morom lumu dogal nangul ba mu xamne amo morom nangul bepp dogal tay wetok sa borom lo soxlaati ñaan ko sa borom lo yene sa bop nang ko yene sa morom boko deful sa xel dina la yedd na la sa borom du sa morom nit mëno ko soxore ba xañ ko xorom mëno ko bëgg ba buñuy rocc ruwam du dem nanu fexé xam sunu borom. am ño xamne duñu saytaane waye bu déwé ñu ñak xarit ndax liggéey ba ñepp di moy borom bi fexé ba ku baax ñu bonal la ku nek ci njub ta dako koo ñu sonal la ca deug deug ñoña ay saytaane yu soxor lañ rew mu ñu deg na ña ca ëpp dañoo juk juk ñu tak ñom ñepp dal di juk dugg ca rew ma fas yene def góor ya borom ñaari tur ya jigeen ña tekki sër ya jele ñen ña ca kër ya yobbu seeni rew ya tagat len ba ñu mën a suuf ñu len seeni rew ya rew ma saytaane kenn dootu ko fa neewal doole reelu saytaane yi ngeen gis ñoo fa ñoo fi xewal lank len bañ len bu len dugg ci mbir ya ndax làmmiñ lu mu laaj am ci jamm ba mu dess jox makani bu mu ci wulit xol ba rir na bu ñoña bàkkoo saytane ngemb na doon na mbeur ma ubil terre ya xool dig la yeeg ya yoon wañu xal ka fa aw reri nga ndax deug fa mu newon jugu fa ku len jublu du moyu nga terre ba ku naw sen nga ndax banexu bakkan lañu def cër ba nanu fexé xam sunu borom ndax banexu bakkan lañu def cër ba nanu fexé xam sunu borom waaw dafa mel ni dañu fa nekk nekk lu leen neex ba mu yàgg àdduna di wax ak ñoom. àdduna di wax ak ñoom moo tax mu àddu. mu àddu mooy nga yëkkati. ay kàddu. Ah, am ñoo ko jëmale. am ñoo ko jëmale. Mm-hmm. moo tax mu ne man àdduna maa amoon naqar ak tiis. am yi ma leen bëgg a yeggee. am yi ma leen bëgg a yeggee. man sonn naa. Mm-hmm. lu nit ñi yàq ñu ne. àdduna amul kuy sàmm sama der bi. Mm-hmm. yàlla mi ko man maandu na. waaw ah, moom sonn de. sonn <laughs> moo tax mu ne amul kuy sàmm sama der bi mi ko mën mandu na. waaw muy wax ak nit ñi. muy wax ak nit ñi. ni ñu nekkee moo gënul de. waaw parce que maanaam am na ci ñooñ lu ñëw rek ñu jiñ ko àdduna. Mhm. yow loo def rek jiñ ko àdduna. Mhm. te àdduna moom mhm. wax dëgg yàlla mi ngi lay muñal. ah jotawul ak yow da dalaa bàyyi rek ngay dund sa dund. ngay dund sa dund. waaye lu ñëw rek. nga raax ko ci nga raax ko àdduna ne àdduna moo tax mu àddu moo mu àddu wax ak nit ñi <laughs> fii mu ne fu ne nee la sa boroom du sa moroom mhm. nit mënoo koo soxore mhm. ba xañ ko xorom xorom mhm. ah kon nit ki lu mu war a am yàlla bind na ko démb laata tey laata tey wala tax nit ñi soxor ah te warul nag moo tax mu leen wax mënoo ko soxore ba xañ ko ko bëgg ba ba ñuy rocc ruwam du dem mu ne nanu fexe xam suñu borom ah waaye nu mu jar naa déglu waay moo leen di delloo ci delloo si ci seen borom lan mooy ñi ko dëkkee doomu aadama yi maa leen aajoo maa leen xajoo fa ngeen ne woon mënut woon leen a Mm-hmm. maa leen dëkkoo daggal leen i bàmmeel man a àdduna mm-hmm. fu waay gàddaaye fekkaat ko fa fekkaat ko fa foo jóge fekk ko fa moom daal mu ànd ak muñ rek bàyyi lak li fi nekk mm-hmm. nga def la neex ah waa am na baatu olof yu wax fii sànq wax nga ko maa leen xajoo xajo mooy lan xajoo mooy moo leen yaatal ci boppam waaw ah. moo leen yaatal moo maa leen dëkkoo maa leen dëkkoo daggal leen i bàmmeel daggal leeni i bàmmeel man a àdduna mu ne moom moo leen dëkkoo ba noppi tamit bu ngeen demee ba nga xam ne dañ naan nit ki dog na. Mhm. mu ne tamit man maa leen xajoo ba mën leen daggalaati bàmmeel ñu suul leen ci sama kam. ñuy dund. Mhm. muy ànd ak ñoom. Mhm. buñ noppee dund mu xajal leen yaata leen ñu am fuñ tëdd ah ki mu jar naa bàyyi xel di ak mat a bàyyi xel ah mat naa bàyyi xel de <laughs> ndax kenn nu ko rëcc de déedéet waaw wéet sa borom wéet ak sa ah, moom de ku mu daggali bàmmeel def naa ñooñu wéet ak seen borom wéet ak sa borom sa borom maanaam mu ne nangul bépp dogal tey ak sa borom waaw wéet ak sa borom mooy lan. mooy euh, luñ luñ ci mën a faram fàcce bari na waaye daal lu ñëw rek nga delloowaat ko sa borom. Mhm. te koy sóoraale ci sa bépp mbir. waaw am na ñu ko mënul de. waaw lu jafe la ñu ne yàlla jafe ndax ah. jafe gaa tax. ku am ngëm man loolu. waaw ak ku sunu borom dimbali man def ba man am ngëm dëgg dëgg. Euh, di di farlu rek. ci jege jegelu sa mhm. Lol dina la ci dimbalé wayé sunu borom mom. deug deug djégé ko Mom mo lay xëc sax ci boppam. sax ci ndigal yi moytu. téré yi ah moy téré yi. Mhm. sa xel dila yedd. dila yedd wa ni nuko xelam di yedd moy di nga tok bamu yag mhm. sa xel di wax ak yow. moy mhm. nga nga nar leuf ci nit sax. nga xamné lolou baxul motax mo la sa xel dina la yedd na la sa borom du sa morom. sa xel dina la yedd na la sa borom. kon ni war tom yag mu deglu bopam laaj am xelam. mu ne ko tey li nga wax ëpp na waaw li nga def gënul de. li nga def gënul li nga nekk doo xool. Mm-hmm. waa yow lii sàggan nga. waa xanaa kook ku am ngëm dëgg. am dal moom moo a déglu am xelam. waaw ku am ak dal moo mën a déglu xelam. ndax mm-hmm. nit ki nit dafa baaxoo daal di juum. Mm-hmm. ak di fàtte. ak di fàtte. moo tax ngay dem ba mu yàgg. loolu nag ñëpp ñëpp la la war. tàggat leen tàggat. xanaa moo tax tàggat leen lan mooy tàggat. tàggat xeetu yar la rek. Mm. xeetu yar la rek. tàggat la ci ay mbir ndax tàggat dëggi-dëggi baat bi maanaam dañ lay tàggat ci lëf ba nga mokk ci mhm. yu mel la ni jele, jëlee waaye takk der bi yóbbu ko ca àll ba fu ci mel ni Dakar bango mhm. di ko fa tàggat ni ñuy jëlee comme na ko waxee coupé moo xam coupé loxo wala di football ñu ko di ko tàggat jele dañuy mhm. jëlee ndongo ber leen ci wet di Kol sen xel di leen di Len. tàggat tàggat away ah, waaye tàggat kon ku ci bëggati nit na ko tàggal àdduna àdduna am lu ko metti na nit ñi am na loo xame ne gënul am na fu mu jëm ak ñoom ndax am na lu mu leen di wax ndax dégg nañu ko moo waral kenn ci ñoom moom it yëkkat ay kàddu ngir dimbale àdduna mu di wax yi màggat mi maa ngi si sama mujjug dund bëggoon naa dund at yu gën a gudd waaye sama yaram àttanatul dund samay gët tàmbali naa lëndëm ba mënatumaa dox guddi samay tànk dëgëratul samay wagg wàcc na dafa mel ni léegi bu may dox damay sëgg samay gëñ dëgëratul lekk yi ma bëggoon yi ci bari dama koo dëdd xalaatatuma wax ak kenn di ko gëdd ndax fu ma toll maa ngi xalaat kërug dëgg ga guddi gu ma tëddee maa ngi xalaat malaakal mawti fëgg sama bunt rocci sama ruu yóbbu bés penci may xalaat taxawaayu dëgg ga sukuraatul mawti amul sikki sàkk mënuma ko moytu ndax kullu nafsin saa i mawti jéggi siraat fu ma toll di ko xalaat safara fu ma ko gis sama yaram daw ndax dugg safara xaw ma lan mooy saafara si àdduna ak noos mi su démb doon tey duma topp sama nafsu gi àdduna nax na ma xoolal tey su démb doon tey dinaa fonk julli guddi yi samay soxna tey lañ gën a doon ay jongama wóor na ma ne dama fiy jógee rek ñu nekk ci seen yeneen i guddi àdduna dama defe woon ni lu gudd la waaye dafa mel ni bëccëg be guddi gi àdduna kenn du ko dajal man maa koy dëggal ndax fu ma toll maa ngi xalaat bés bañ may dajal. àdduna kenn du ko dajal man maa man mii maa koy dëggal ndax fu ma toll maa ngi xalaat bés biñ may dëjël àdduna wax naa ñoom sànq de. waaye waxi màggat mii am na solo ndax mag mii moom li mu yëkkati ko wax. Mm-hmm. mi ngi wax boppam. waaw li ci gën daw yaram fii nee na samay tànk dëgëratul samay wagg wàcc na wala mu yàgg mu ne samay gëñ dëgëratul mm-hmm. waaye nekk mag metti na waaye. nekk mag metti na moo tax nit ki bu nekkee mag ñu moom daal dem na ba yor feebaru mag. Mm-hmm. fépp di metti oh. <laughs> kon nag ku nekk ndaw war na waajal ak mag. ak magam. ndax nekk mag metti na. ndax ñi muy waxal ñu nekk ay tu ay gone jàkkaarloo mu leen di wax boppam luñ dundagul ndax ñu ngi koy dégg. ñoo ñoo ci war a bàyyi xel nag. Mm-hmm. moo tax mu ne maa ngi sama mujjug dund bëggoon naa dund at yu gën a gudd. waaye sama yaram attanatul dund. oh ku ne ko kaay ma yokkal sax mën a doy na. doy na damaa no bëgg noppalu sonn naa. ndax yaram wi attanatul dund. ay ndeysaan kon mag ñi ndaw ñi waral leen jege. waaw bu baax di leen déglu. ñu dénk leen. ay kàddu. wax leen. ñu jariñu. xamal leen. àddina tere leen. ñu bàyyi ñu moytu. ngir mën a jariñu ngir mën a jariñu waaye ma gis léegi ndaw ñi ah dañuy daw mag ah, <laughs> kon est-ce que dafa am ay mag yu ñuy daw. ah am ay façon mag ñoo xam ne. yooyu la daw ku leen jege nu ñuy def. ah <laughs> <laughs> xultu ak di saaga. Ah. ak duñ la wax loo xamee ne la gën la. la gën ah, ba ma ciy tollu ma saan dem fecci ma ciy toll. doole ji ma yoroon. asamaan ba mu jegee. naa ci duut sama baaraam. nangam toll ci def ko bàyyi ko ayoo ndax loolu jaadu na. Ah, am na ci yooyu daal yu mat a bàyyi xel la. yoo ta bàyyi xel la. Mhm. kon boog yàlla nañ nekk mag yoo xam ne mag yu ñu yàlla gërëm la. Mhm. te képp ku nekk ndaw nga matal sak ndaw ba nekk mag. waaw fii wax nga samay tànk dëgëratul samay wag wàcc na wagg mooy lan. wagg mooy ay mbagg. ah mooy ay mbagg ay mbagg ah, ah un épaule des mhm. épaules. des épaules ne samay gëñ dëgëratul. gëñ. mooy mooy bañ yëpp. Ah. dem na ba bañ yëpp dëgëratul. moom mooy les dents. Mhm. ndeysaan bu bëggee sàq mi ndawal dootu ko man dootu ko man su bëgg tëye goro da yor ab joosam ne. di ko xoos di ko ah, joos. ndeysaan yéel ma fii. <laughs> Eh waaye ndeysaan waay waay waay waay waay yàgg fi neex na waaye màggat metti na. yenn yàgg fi metti na tamit. mu ne lekk yi ma bëggoon yu bari dama koo dëddu. dama koo dëddu. ndeysaan ndax ñàkk mën a yëy. ndax ñàkk mën a yëy. dëddu mooy lan. wan ko ginnaaw wan ko ginnaaw. waaye mhm. eh waay mhm. mu ne sukuraat sukuraatul mawti amul sikki sàkk siki sàkk mooy lan amul xel ñaar ah, amul xel ñaar hmm. ñu ba ci biir fii mu wax fa am jo wax joo xam ju am solo la mhm. ndax nee na bi muy jeexal fii àdduna kenn du ko àdduna kenn du ko dajal mhm. man mii maa koy dëggal ndax fu ma toll maa ngi xalaat bés bu may bés may dëjal kon dafa mel ni moom yëg na li ko desee bareetul yàlla nag moo ak ru waaye nit ki dafa mel ni war naa waajal boppam laata dee di ko bett di ko bett moo taxoon man sama maam dafa maa wax mhm. mhm. mhm. ku dund lu bari dese lu tuuti loolu moom sikk newu ji yàlla nag moo xam waxtu bi muy soxla jaamam di ko yóbbu waaye li wér te ku dund lu bari dese lu tuuti fa mel ni ñu jël génn buum rek def ko ci benn pax ngay ñoddi rek di takk di fas di dagg di sànni defoo ko ci lu am bis ngay xëcc rek mu mel ni jeex oh, oh jeex tàkk xanaa moo tax gan gi moom bàyyi ko fa dari di fas yéene ñëw ndakaaru la ñëwal fan kon bok gan gi. na nga fonku gan ba bu la digge set si nga diko wadjal gan momelu yalla la kuko teral am nga ndam. Mhm. bale raxas fompu sa kër diko dalal. Mhm. bu yexé jam santé lak mom diko saragal, sargal gan momelu yalla la kuko teral am nga ndam tek ko ca kaw diko nabbu nabbee def ko buur ak lo nopi nopi ubil sa diko waxtanal gan moomeelu yalla la kuko teral am nga ndam nay lek ba sour bul yéem yap wata bor nan ya limonade yu jox ko bul nay ci sa gan gan melu yalla la kuko teral am nga ndam tàggoo malay khalat yombul anday san gan sulay beug min a ñibé ah anday san gan gan su lay bëgg ngay lay ñibé waaw la fa ni leg leg nit am as choro mu nek ca bam yag mu neex mu xey ben bis ñun mu ana diw ñu ko ñibina ñibina loolu métti na de. gan fañ koy bëgg a miine lay ñibbi. waaw waaw li ma jaaxal. waa Ndakaaru ah laa mën a wax. Mhm. ñoom ah mën nañoo gan a de. waaye dafa mel ni teel nañ gan de. teel nañ gan. Mhm. Ah, waaw loo gis rek du ñëpp nag. boo demee sa dëkku maam. Mhm. ñu wàcc lal ya di la defal ndekki lu neex ñëw wër la sukkal la ndeysaan laaj la waa ndakaaru daal di ñëw teral la ndeysaan boole ñëw wër la booy dem ñu xotoor gerte ga bojj dugub ja jël jël jël li nga xam moo di ñebbe ja jël bisaab bu xonq bu weex boole ndeysaan jël ganaar yañ yaakaaroon xëy ko xottal nga yóbbaale. ñoom kenn du ñoom de. noo ko waxee noonu rek sax lay demee maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp. ndeysaan sama sama ñoom maam samay nijaay yu fa nekk yëpp. ndeysaan boo demee ni ñu ko waxee nii. Oh. lañ lay def dañuy wàcc seen lal. Mm-hmm. jël seen i teraanga yëpp jox la. waaye fii yëpp jox la nga andiwaale. <laughs> fekkee sa sa nijaay ñëw na fii ñu booy laak moom néeg nga ne sama nijaay day xaran day galan lan bi <laughs> ah gan gi defa bari lu muy lijjanti waaw kii dafa war a gaaw ñibbi <laughs> waaw Ndakaar moom dañoo war a jéem a xajoo nit waa waaw dañoo war a xajoo ah, ah naan ki tibbam yu rëy dankam yu rëy yi <laughs> kenn xamul nu mel nii <laughs> am déet waaye gandam di yeewi bay waaw gan du yeewi béy. Hmm? lay dëkk ba du fii. déedéet dafa mel ni tam Ndakaar léegi gan ñëw fi soppeeku lu war a lool. muy ñëw moom ci boppam mu soppeeku. lay lañ ñëw fii nekk ay roy dàq ñëw daal di summeeku sol leneen nekk ci leneen fu nit ñi demul nga nekk fa ndax lool gën na. waaw loolu gënul boo ñëwee gane si ay nit. Mhm. fa ñu yem nga war a yem. Mhm. loolu sax mooy mooy rafetal ak nekkin. waaw ñi nga gane si ñooñu ci nga war ñi nga war ñooñu nga war a xool. Mhm. fa ñu yem nga yem fa la ñuy def nga def. gan gi ci kër gi daa war a am njëriñ. soo bëggee ceebu jën bu neex bu saf-sap bu ndaw si duggee ci waaj war nga ko mën a teel doomam. waaw ah. waaw loolu buy dëbb war ngaa mën a Ah, daa daa tànn ceeb. waaw tànn ceeb. ah am ci loo ko dimbale. bu jàppee fee nga jàpp fee kon boog gan. waaw sargal mooy lan. sargal mooy di ko di ko sargal di ko laaj yi di ko laaj dëkkandoo yi mu bàyyi ña mu bàyyi ginnaaw njaboot gi mooy di di ko sargal di jàmm santeeg moom. nabbu nabbee. nabbu nabbee nga mel ni ku ko gëmeewul daal. ba mu yëg ko ci xolam. ba moom mu yaakaar ne da nga koo yéem mooy lan. yéem mooy naw daal. waaw yéem. Mm-hmm. boor. wataboor yàpp wataboor mooy yàpp wu bees. <laughs> ah waaw yàpp moom am na solo de. waaw mooy muy ah, waaw mu ñu ren tër sab ah. fees ko. def ci lu mel ni ñuy wax dibi <laughs> wala def ci sab sup ah wala ceeb bu weex. waaw daa mel ni wataboor moom ah. am na solo bu fanaanee nuñ koy woowee. yàpp bu sik ci ah, mu sek waaw sëg ah moo tax ñaan yàpp wataboor moytu leen ko. waaw daa bari déet bàyyi leen ba mu. sëg waaye boo ci yàppee lekkee lu yem xanaa nag bañ a gaañ sa bopp. ndoom yéen loo gis rek lu yem sax moo ci kon boog gan gi bu ñëwatee teral ko teeru ko Euh, xam na yéen a bokk ndax saa fu demee mu defal lu baax kon boog dañuy yaatal gan yi waaye gan gi moom it warul bëgg xaalis ba dugg leen xaalis. cëy xaalis teggi na tuumay bépp xas boo ci amee jamono ji ak jañu jëm bunt boo fëgg ñu ne la yegsil ndax xaalis dinañu wàccee ki jàngi woon noppiloo ki xam seedeloo ki yégul ndax xaalis dina tax nit topp ku mu gëmul dem fu mu bëggul. seede lu mu yëgul ndax xaalis dina tax nit di jaamu saytaane ñu def ko nib sëriif mu leen di yenu lool léppam lu diis ñuy dëggal tanaan mooy teggi suñuy tiis nit mooy jaamu saytaane ndax xaalis dina tax góor takk ku mu nobul jigéen sa yëg ak ku mu bëggul mu nekk ca di dëngal mu xam ko te di ko muñ ndax xaalis dina tax wayjur topp doom doom ju topp nafsoom di jëf lu ko soob luñ ne mu ne du moom lu ko yitteel mooy na woom ndax xaalis ay waay oh, oh. def lu ko soob lu ñu ne mu ne du moom li ko yitteel mooy nawoom ndax xaalis ay waay xaalis waay damay dem ci baat olof yi tuuma mooy lan tuuma tuuma dafa bokk ak waxal nit ki lu amul waxal nit ki lu dul dëgg damay bañ wax baat bi mm-hmm. tuuma mooy diw de yaakaar naa ne naan katab sàngara la masalan. Hmm. loolu tuuma la. Hmm. waaye ku yor biteelu sàngara moom moo tuumaal boppam. Ah, moo tuumaal boppam moo tuumaal boppam. ah kuy nëbbatu naan boo jàngee. feeñ dëngal. dëngal mooy wàccee ko yoon dëngal. waaw néew na bul dëngal gaal bul wengal gaal bul dëngal gaal. bul dëngal gaal ah mooy dëngal ko. dëngal ko waaw sóob. sóob. tey jii boo jëloon dugub di ko dëbb boo ko sottee ca gën ga da nga ko sóob. wala gaal gi sóob. soobu soobu jëm géej jëm géej mm-hmm. Mm-hmm. yitteel yitteel yitte mooy nga nga am yitte mm-hmm. farlu euh, mooy yitte farlu ci ci mbir mi nga nekk xaalis bañ ko jaamu bu yàggee mu not la mën na laa faatloo nit man la laa lo sa bop man na rek sa ngëm ndax ne nga na tax jigen tak soxna sumu nobul mhm. na tax nit top ko xamee ne gënu ko mhm. na tax nit def lo xamee ne la ko tay dal yaakaar na bu non tay du ko def kon bok khalis nit moko sak way dafa melni mom mo not nit momonot mo not nit mhm. wa du ñepp nak du ñepp nak khalis mom nang ko mom rek waye bu la momé mara day tali la waye ñak ko baxul de ñàkk xaalis baaxul. waaye ñëpp see war a muslu. waaye am kóoru tax rawatina ci jamono jii. waaye am kóoru tax nga bew. déedéet wala nga xeeb kenn. wala nga xeeb kenn. kon boog xaalis nañ xam ne mën na laa defaral waaye mën na laa yàqalal li ñu cëraloo jeex na tàkk looy tàggoo mbokk yi. waaw comme ni ñu ubbee woon rek la ñuy tàggoowee di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg rek képp kuy sénégalais foo mënta nekk rek sunu borom defal la jàmm segam jàmm gën jamaa rek te ku yàlla defal jàmm nga am jàmm yàlla nu yàlla defal jàmm yàlla na yàlla barkeel suñuy mbir ba lu ñu yorati mu toll ni jamaa ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu waa Parcelles Assainies Cité Fadia fa ma dëkk di nuyu waa Saloum di nuyu waa Sénégal gépp di nuyu képp kuy seetaan Malikia TV di gërëm suñu réalisateurs yi di leen sant di la gërëm yow bu baax a baax baax di la sant. jërëjëf di la wax jërëjëf. a ah, kuy xalam di cee jaayu sañ bi rafet na de. jërëjëf <laughs> ah <laughs> kon boog mu nekkoon seen jataay taaf te ñu daraloon kenn moo di Ibrahima Seck ñu dellu sant ñi ñu àndaloon ñu nekk ci wàllu caméra yi ak ñu xam ñoo yool ko segg ba mu baax mu di montage bi ak réalisation bi ak képp koo xam jàpp nga ci lii nga xam ne moom waral seen jataay ba mu jag kon boog ñu dellu di sant kilifa yi ndax ñoo amal li dellu nag di mu seetaan bu baax di sant suñu borom mu sàng ñu malaanam sutura defal ñu xéewal may ñu li gën ci ñun te xañ ñu lu bon ci ñun te may ñu barke ak li nga xam moo di ah, taranga Euh, fekkee ko tal ko am ko muurloo ko kon boog doonaa kon manaa kon amaa kon yoraa kon nekkaa kon buur laaw lu ñu juum yàlla jéggal ñu ko te ngeen jéggal ñu ko teñ joxe beneen euh, daje ñu daje ci waat ak yéen kon boog jàmm ak jàmm ba beneen yoon jërë ngeen